af waxtaane islam suñ programme boo xam ne dañ ne ko day indil fii si Eco TV International every week di waxtaane suñ diine islam bi di indi important topics different topics yoo xam ne dañ ko waxtaane yoo xam ne dafa ànd ak suñ wàllu diine islam bi ak luy doxi luy dox si jamono bi waaye tamit balaa ñu dugg si biir programme bi dina bàyyi suma guest bi oustaz Souleymane Diallo mu nuyu wante ak askan bi oustaz asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu Mariama ñu ngi lay nuyuwaat beneen yoon bu baax a baax si Eco TV international ñëwaat fii beneen yoon toogaat fii nii di am yenn waxtaan yu ñu waxtaan nekkul ne suñ xam-xam wala suñ bari wax moo ñu ko may waaye yi léppoo ngir defar la rek defar askan bi ak wax li nga xam ne yàlla moo ñu ko sant ndaxte lépp loo xam ne wax nañ ko fi rek nekkul ne. ñun ñoo ko teg suñ boppa wala ñun ñoo wax ne dinañ def nangam lu ñu yàlla sant la kon ñu ñëwaat beneen yoon incha allah di ñëw def fi ni programme bu nga xam ne programme bu am solo la ñu bàyyi Mariama incha allah mu continuer kon niñ ko lay defee rek balaa ñu duggee si biir waxtaan bi di sant suñu borom di ko giiram parce que moo ñu may kattan bi may ñu wér bi may ñu fan bi pour ñu mën a teewu ah, tey tamit ñu mën a am programme ak suñu mbokki jullit yi di julli si yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suma waajur yi suma waajur bu góor bu dellu si boromam di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana suuf bu sedd si kawam te ko bàkkaara bi ak képp jullit bu dellu yàlla na yàlla xaare àjjana suuf bu sedd seen kaw jéggal leen seen bàkkaar suma waajur bu jigéen bi nekk si kër gi di ko sant di ko gërëm di ñaan yàlla yàlla may ko fan bu gudda may ko wér wu yaram may ko kàttan du moo liggéeyee yóbbu njaboot yi may ko fan bu gudda bàyyi ñu ko fi ba si kanam bu fekkee njëriñu njaboot yi suma jëkkër tamit may kontaan si moom di bég suma jëkkër bu ma yàlla may di wax yàlla ma may di kontaan si moom trop di ñaan yàlla may ko fan bu may ko biir eh, bi yaram may ko kattan bu ma mun a eh, liggéeyee te yóbbu njabootam Ah, di sant oustaz tamit di la wax jërëjëf saa ñu nekk suma la ooyee fii si Eco TV International yaa ngi kontaan ba pare di ñëw fii si Eco TV International di mën a waxtaan suñu mbokki jullit yi saa yu ma ko ooyee ya, rek mu ngi always ready to come hmm. du hésiter du wees suma time kon maa ngi ko wax jërëjëf si loolu bu baax yéen la yàlla may wér bi yéen yàlla may la kattan bi nga def sa liggéey bi yàlla jàppale la incha allah rabbi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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min uqdatan lisani yafqahu qawli allahumma barik fi man fi ma atayt wa aafina fi ma aafayt wa tawallana fi ma atayt wa qina sharra ma qaday innaka tahdi man yuqda alay ah gannaaw buñ defee muqaddima bu gàtt boobu noonu rek di sant suñu waajur bu baakha baakha baax dana buñ julloo si yoonte bi def ndax té si seen digal lañ nek di wëy bu taxutoon seen digal amna yo yoo yu bari duñ ko def kon ñu leen di ñaanal fan bu gudd ak wër ak wér la ya di ñëw ci topic bu nga xamné ne lañ nara waxtani muy muñ patient suñ ko waxé dina am lu mooy firi ñaar benn bi mooy si arab la mooy firi muñ beneen bi am na noo ko tekkee ci english patient boobu noonu lu mu lay jox comme nit ku feebar amoo ku feebar kooku patient lañ koy wax kooku patient la mm-hmm. muñ tamit patient la ñoom ñaar seen language bi daf doon benn waaye difference spelling moo doon ñëw muñ yàlla moo ko njëkk a wax si Quran wax na ko si verse yu bari different different saar soo ñëwee si saar bu ñuy wax wal asri moom fay jàngale wal asri innal insaana la fi xusirin illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mu répéta sabr boobu noonu si yeneen euh, aaya yu nga xam ne ñu ngi si biir quran bi yooyu demee ne fasbiru kama sabara ulul azmi mina rusul ak am na aaya bu ñuy wax ne euh, euh, aaya bii nii mu ngi koy wax ne mi ne الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفلحون أو متقون فوفنون يب يبري من فاي واح كم لغا خمنا موي من من تبوك بام نكون نيالا بام كو واخي نون رك دفكو أميلو نون يالا بوم نيو واخي مون dafa am leneen objectif bu mu teg ci gannaawam ne ku muñ lii ngay am mm-hmm. wax nañu muñ kese rek am si waaye daf ne ku muñ di nga am nangam kon nga gis ne muñ lu yaatu la lu bari la am na ñum dal am na ñu ko yàlla teg mu nga xam ne muy natt su ñoom mm-hmm. waaye incha allahu ci kanami waxtaan bi dinañ ko gën a yaatal ci biir ñu bàyyi ma continue jërëjëf yaa oustaz mm. si differentiation boobu li nga def fii xam ne between patient ak mm. patients ñoo mm-hmm. amaar am na difference parents am na ñoo ak quite a different pronunciation boo mm. waxee patient moo nekk ku feebar bu ngi tëdd si l'hôpital bi ne mooy fi mooy muñ muñ bu ko ustaas nu mu ko waxee rek muñ dafa nekk si alquran mu récité suratul ashri mu wax ne yàlla dafa wax ne ah yàlla daf ñu digal ne pour ñu muñ. waaw suratul nga wax fii nga ñu ko ah, moo tekki la mu muñ wax si alquran. Mm-hmm. mu ngi wax si jamono am na ñu ko firee na asri jamono la mooy tekki mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ne asri mu ngi tekki lan tàkkusaan tàkkusaan moo nekk la salaatul asr moo nekk boobu noonu waaye différencier dafa am foofu noonu lu bari ñi ñi ne tàkkusaan la ñi ñi ne time la waaye ñun nag buñ gën a jàpp mooy lan time time boobu noonu moo nekk time tàkkusaan ah. waaye lu gën a opposifier yi ñu ne lan jamono ndax dafa tombeel ak la jamono si nit ñi moo nekk wala asir boobu nag innal insaana la fi xusirin mina lan nit ki mun si lan réer illa alladina amanu wa amilu solihaat ndere ñi nga xam ne gom nañ yàlla ba pare di def lu baax mu continuer mi na waa sow bil xaqi na ngeen dénkante lan si dëgg maanaam saa yu ngeen toogee di leen di wax dëgg di leen di wax lu rafet di leen di wax lu jub su ko defee lan ngeen mun a doon lan mbokk mu continuer waat watawasaw bis sabr te di len di denkentel muñ ku am naqar fexe leen ba muñ ku am banex fexe leen ba muñ loo ndax te di nga gis yo xamne da fay upp da fay upp ba yaax waye muñ bi ci bopom mom la yalla soxla naqar bi lu metti metti lu tar tar tar yalla mi na boko ko dina la jox lenen lo xamne moko kon di nga gis ne muñ boobu noonu lu am solo la nga xam ne dañ ko war a dundee ñun julliti soo demee ci biir société bi muñ mun nañu wax ne am na waaye ci benn boor tamit mun nañu wax ne ñàkk na ndaxte tey su ma jógee fii ni ma wax nit tey lu ko naqari tey bala maa xam lu xew fekk rey na ma bu yàgg te lu ma laaj man bala waa xam ne xew fekk rey nañ ma bu yàgg ndaxte lan amul xooli patient bu nga xam ne mun na maa taxaw régler euh, problème boobu noonu exemple tey su ma jógoon saaga nit tey mun na ma wax ne lu tax nga maa saaga bul ma dellu saagati bugguma ko mu muñ loolu mu jeex tàkk mu génne ko si xolam waaw am na ñoo xam ne tey boo leen saagoon tey balaa saaga bi di dem ba di wow ba di wow si sa gémmiñ mm-hmm. fekk yow gis nga musiba bu yàgg ndaxte dinañ la dóor soo peeseen boobu noonu si boppam moom lañu war a jàngaat nga xam ne léegi dafa réer mm-hmm. maanaam nekkoon na lu am solo loo xam ne nit ñi dañ koy xaw a fàtte gannaaw muñ fuñ koy commencé suñ demee tey exemple jigéen buñ ko takkee ba pare bés bu nga koy muur mairie dinañ wax paa yi dinañ wax kenn ku nekkal doom boo àggee muñalal sa jëkkër mhm. muñalal sa goro muñalal sa jëkkër yi ndawi mhm. muñalal sa njëkke yi mhm. muñalal waa foofu noonu yëpp muñ boobu noonu si boppam lu ñu la digal ndaxte boo demee foofu noonu di nga fa fekk lu la neex ak lu la naqari waaye na nga jël boole lépp muñ mu doon benn jëkkër ji tamit ñu dóor la ko ku ñu lay asil kat yaa ko ëpp xel benn am na góor yoo xam ne ñoo ëpp seen jabari xel waaye am na jabar yoo xam ne tamit ñoo ëpp seen góori xel loolu yëpp mu fa suñu waxee fii ne rek wax fële soo suñ ne ku kuñ lay asil matal ko ndaxte am na lu manqué si moom yow yaa ko war a matal te saa yu nekk di nga gis loola naqari si moom muy si wax muy si jëf ak nu mu mel kon bu boobaa yow lu ñu lay dénk muñ ko ndax boo ko muñee mu jeex waaye kirti kirti rek nga jël ak action bu yàggee yàq la mooy asi moo tax muñ dafa am solo torop moo tax yàlla muy wax si Qur'an ne wala nabluwannakum minal xawfi wal ju'i wa naqsin minal anfusi wal amwali minal amwali wal anfusi wa bashiri sabirin alladina ida asaabathum musibatin qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aaya boobu noonu dafa am lu mooy tekki yàlla mi ne dinaa leen teste bi shay'in si dara dafa wax rek dinaa leen teste bi shay'in si dara mu ne teg mu commencé di walla la lim wala nabluwannakum bi shay'in ne ju'i mu ne dinaa leen teste si xiif dinaa leen teste si seen alal dinaa leen tester ci seen doom yi loolu leen am yëpp dinaa leen tester lu mu si teg wa bashiri soobrin wa bashiri sabirin na ngeen bégal ñi nga xam ne ñooy wa mi ne dina bégal ñoo xam ne ñooy lan muñkat yi exemple tey boo amoon tey ñetti doom yàlla jël doom mm-hmm. ñàkk nga nga muñ loolu nga amoon alal yàlla nangu alal bi ah. nga muñ loolu mm-hmm. nga amoon fii nii business boo xam ne mu ngi dox yàlla jël ko nga muñ ko yàlla mun na dimb bu nga demee ba nga muñ loolu yëpp ah. ah man dinaa am leneen lu nga xam ne dinaa ko teg sa gannaaw nekkul loo xam ne lu ñuy waxantu la nii mm-hmm. maanaam dañ si gis exemple exemple exemple yu bari mm-hmm. ku muñ rek di nga am nangam gannaaw bu yàlla defee loolu ba pare yow bu nga muññee alal bi ba mu jëlee si sa nit ñi mu ñàkkal loola sa alal bi ñàkkal loola lépp yàlla mu ne bu nga demee ba muñ loolu dinaa la jox ñaari fay benn bi dina nekk ajjana benn bi dina nekk fi ne si duniyaa bi fii kon nga gis ne muñ nekkul loo xam ne lu ñuy waxantu la waaye lu ñuy jëf la te muñ fu mooy nekk mooy si xol foofu la mooy ne du nekk ci gémmiñ du nekk ci bët nekkul tamit ci nopp nopp yi day dégg bëti day gis gémmiñ gi day wax waaye xol bi si boppam mooy jàpp nit ki nag lu ko xolam mayut du ko mën a def bu nekkee ne sa xol bi mënul laa muñ fii ba abadan doo mun a muñ waaye lan la lu nga xam ne danga koy tireen sa bopp la ndaxte nekkul loo xam ne lu yomba la ndaxte exemple tey bu sa nit gaañu woon tey di nga jooy toog dal def lu nekk nit ñi naan la muñal defal nii yaa ngi kirti karte kirti karte foog naa ne boo noppi woon tuuti ndaxte métti na nag métti na fu nit mun tajaat rek di nga jooy waaye nag nga jooy ko jooy xol nga teeytu ronko ñi moom kenn mun koo tere génni ndaxte moom dafa oyof fu mun tajaat rek dina génn waaye boo ko muñee rek toog tàllal sa borom nga ñaan ko yàlla dina ko jéggal waaye boo ko munta muñ rek mun ngaa dem def naka su dul noonu gën a garaaw mooy deyi mbetteel boo tegut sa time rek dinga yàq lu bari kon nga gis ne muñ dañ si war a jànge lu bëri yaatu na waaye dinañ si laal some point ma bàyyi nga continuer tuuti jërëjëf yaa oustaz si si wax bu rafet boobu si li nga wax si wàlli patience mooy mm-hmm. muñ te li fi oustaz wax ne dégg nañ ne muy am na loo xam ne dafa play a vital role in human life mm-hmm. especially si society bi léegi dañoo gis ne mm-hmm. comme ni nga wax ne nii bi sa nit deeyee doo mën a muñ bee to an extent da dangay def loo xam ne dangay dégg ni la wax ni sa yow jooy yi nga def ni sa baaxut si néew ah, si waaw ah, ku bàyyi jooyi di muñ hmm. fu nekk képp lu ñoo def lépp lu ñoo def si àdduna bi daal hmm. danga dégg nañu laa wax ne muña konte bala buñ gisee ne every step bu nit si nekk di def ñu laa wax ne muñal hmm. keep patient muñal kon muñ dafa mel kon muñ dafa nekk si alxuraan yàlla suñu borom moo ñu ko sant moo ñu ko sant moo ñu ko sant ok dinaa ñëw fii ah, di nga gis si société bi léegi. léegi ah. man si mujj ba tey di nga gis si société bi léegi. Ah. comme ni nga ma di dafa ñàkk dara. Hmm. wala tey nga nekk borom alal. Hmm. nga ñàkk sa alal bi. Hmm. te xoo xamoo sa alal bi si nu mu dugg ba ñàkk ko. da ngaa dégg ñu laa wax ne dañ ma liggéey dañ ma sànni korte. nii ak nii ak naa nit yi fàtte nañ muñ bi fàtte nañ muñ bi si li yàlla wax. ndax léegi ñu ngi wax ne di ma liggéey du gën a fii génn na fa la. si lu nga wax am na ñoo xam ne kenn toppawul leen dara dañuy yaakaar na ndax nit moo leen toppa mm-hmm. fekkee yàlla moo nekk di def ay mbiram surul dañ dee wax na yàlla buy defar mm-hmm. danga fonam ngay yàq suñ borom lépp loo xam ne teg na ko doomu aadama moom moo ñu ko gën a xam mu leer ñàkkaa leer yëpp moo ñu ko gën a xam mm-hmm. ndaxte moo ñu ne lu nëbbu si yéen ak luy feeñu si yéen man suñu borom man xamna ko man ndax ta bama len doon ken fekke wu ko man doon kon lepp lo xamne tuddu nako example nit ki lol dina dal tey example tey so amone ben business tay business bi dox lol nga sey génne ay millions millions ngay dem ba am ay company. di jël ay nit hundred people to two hundred ñuy liggé ci sa onda yàlla na commencé testé xaar ma seet suma jaam bi tey nu mooy def tey su la joxee doom dina la xool sa alal bi ak sa doom noo leen di contrôler ndax dangay xañ sa doom yi alal bi wala sa jabar dañ leen koy xañ wala ndox ndooy dundee ñëw booboo gën a garaaw nag am alal ba pare nga koy xañ njaboot bi yàlla du la wax dara daf lay seetaan noonu la mu commencé na di ci alal bi par benn benn di ci alal bi par benn benn dafaa jël njaboot ji tegoo ko fële suñu borom si boppam daa jël njaboot yi tegoo ko fële mu seetaan la yow ak nag sa alal bi nag naka ngay fexe ba doxalee sa alal si loolu la la commencé di la nattoo nag fekk dee lawuloo sa xel bi gannaaw mu rocci alal bi ba mu jeex taxaw di la seetaan bés boo alal bi demee ba jeex doom yaa ngi jàng pereegul alal boobu ñun yëpp dencal doom bes bu doomi pere mu jox len ko legui nak yow nak nga tok na commencé di wa man alal bu bari bu ma amoon yëpp lan mo xew ñu jël ko lan mo xew ma ñàkk ko gis nga ñu continue yalla di la setan rek bam dem ba jeex bu nekké na borom xel nga war nga to nga xalat ne sama njabot di de am na la ma te yàlla kan moo wax ne alal ji dañ ko war a séddoo ñu naan njaboot ji mm. ndaxte nit bu gaañoo bàyyi ay doom alal ju bari yaakaar na ne moom a njaboot ji ñoo koy séddoo ak seen yaay ñu miraas alal bi foofu noonu mm. léegi nag bu nekkee na yow amuloo seen boobu noonu mm-hmm. da ngay toog dal commencé di dem si sëriñ yi nii nii naa mun ngaa dem si sëriñ mu ne diw moo la liggéey diw moo la yàqal mm-hmm. fekk noonu de ak yu nga xañ sa njaboot ji si boppam moo jaar foofu noonu nag bu nekkee ne nekkuloo boroom xel mu ñu loo boo demee mun ngaa tooñ diw boobu nag bari na de mm-hmm. borom musoor bu rëy ba si kër gi borom xaftaan bu si kër gi mm-hmm. ku tuuti ku si kër gi ku rëy ku si kër gi ku gën a bari wax ku si kër gi ñooñu rek lañ koy sant mm-hmm. ñooñu rek la wax ne ñoom ñoo la def nangam waaye boo toogee xalaat muñ tuuti rek yàlla na la xalaatal sa njaboot ji foo jaar ak ñoom. yaakaar naa ne métti boobu noonu boo toogee muñ koy rek yàlla dina la delluwaat sa alal bi yëpp. Euh, kii nii Ali bun Abi Talib dafa wax ne muñ comme ni or noonu la mel lifin góol góol mu ne muñ góol la soo ko muñee rek yàlla jox la lépp te dëgg la mm-hmm. ñoom seen jamono ñoom dafa mitti woon yi daf daan dem ba lum lekk sax amatul ngir lan ñoom dañ daan nattu seen bopp dañ daan xalaat seen diggante ak seeni borom alal yu am yëpp ñu spend ko si yoonu yàlla taami azaka su jotee ngeen ne déedéet lépp lañuy ñuy ngir lan am relationship diggante ak seeni borom ndaxte mu googu noonu si boppam yàlla daa lay xëcc si bu bokk nooy gënaa a muñee yàlla di la gën a la xëcc si sa bopp Sëriñ Tuuba borom Tuuba bu ko Tuuba bi jëlee gaa yi yóbbu ko Ndakaar mu am benn néeg bu nga xam ne ñu ne benn zaaru néeg bu em la nii soo xoolee si picture sometimes sax dañ la ko dee mën a dural nga em ñu ne néeg bu ñu ko doon dugal ñu ne néeg bi ay xotti butéel lañ fa def ay ràbb ak lépp loo xam ne dafay jam ñu ne néeg néeg bu gàtt nii bunta bi yëpp ay jam-jam ñoo fa ne te moom waxoon na ne borom moom du dellu gannaaw ba mu demee ba teg tànkam nekk si ay jam-jam la ko teg mu ekkitiwaat beneen bi teg yëpp dugg si la yàlla yónni Jibril mel ne ko seetal ma sëñ bi bu mu demee mi ne mu fekk sëñ bi def ñett ñetti mbir sëñ bi dafa dellu gannaaw dellu gannaaw boobu noonu maanaam dafa delluwaat boppam si yàlla mu muñ mu santaat suñu borom yàlla gën koo yokkal muñ bu muñ boobu noonu moo ko may lépp lu loo xam ne am na ko si àdduna kon ñooñu nga xam ne yàlla moo leen nattoo ak ñeneen i ñeneen ñeneen yàlla moo leen nattoo loolu yu metti yooyu noonu bañ demee bañ ko muñ si lañ am la nga xam ne loolu lañ bëgg seen diggante ak seen borom kon muñ nekkul loo xam ne lu ñu waxantu la de lu ñu yàlla sant lu ñu yàlla sant la ku muñ dinaa la ibbil say mbir mu gën a yaatu ndaxte muñ nisfu imaan la wàll gom la genn wàll gom la mooy lan muñ kon nga gis ne société bi si boppam dañ war a jàngat lu nga xam ne mooy lan muñ saa yu soo demee si trafic bi daf dee xattu lool spécial si time julli bi nga xam ne ñëpp ay génn marché bi xat nit yëpp tàncoo la dajaloo kenn ku nekk mu ngi am lan lu mooy yàkkamti driver yaa ngi dawale client yi borom bi tigi tamit ñu ngi profité client nu mel mm-hmm. waaye soo demee si ko trafic bi daf dee métti torop dinaa ay pour ñu xëjalante meñalante si boppam daf dee métti yow nga war a génn sa morom ñu taxaw sa kanam tam sa morom mi ne du aliyar yow doo aliyar ngeen taxaw foofu noonu nag di waste time ñu nekk si gannaaw xëy na am na ku nga xam ne mu ngi feebar mu si biir moto bi yéen soo leen gaaw génn rek kooku noonu mun naa xam euh, naa faatu anytime si weeru koor bu ni man gis naa ko fu ma taxaw noonu Latrikunda gis naa fi ñetti accident yoo xam ne unnecessary damay rombu do rombu ki ñew taxa sa kanam kene ki daf la ñew fresh la laalal tuti ngeen ñew taxa yeen ñaar yeb yéen na ngeen lijjanti problème bu ndaw boobu noonu lool mu nga dem benn jël benn peinture wala benn spray laal ko ni wala côté sa ko ni mu jeex tak kene ku nekk dem yoon way benn xoss bu ndaw ngeen waste time ñep sétal lool non ku amu patient do mëna def lool kon nañ bay xel li nga xamne ne muñ nañ ko jangat suñ biir mm-hmm. tay xol bu munta muñ rek muñ ta du dara te muñ yëpp si xol lañ ko def xol bi mooy téye yaram ji ànd si waaye xol bi bu bañee rek yaram bi du nangoo def dara ni biréen nu mel noonu la mel bés bu biréen bi demee ba stop rek yaram bi dara du mun a fonction kon xol bi tamit bu te jàpp dara yaakaar naa ne dara du mun a continuer ma bàyyi la continuer incha allah mm-hmm. mm-hmm. tey ah, man gis naa ne ku muñ moo mun a jàmm yàlla. Uh-huh. parce que boo gisee ma wax loolu tey wala nga ne bés bu nekk. Uh-huh. yaa ngi julli. Uh-huh. di taalal sa loxo ci sa borom. di ko ñaan yàlla may ma alal. yàlla may ma alal. bés bu nekk ngay ñaan yàlla may la alal yow yaa ngi mel ni comme dara. bés bu nekk ngay ñaan yàlla bétu nga dem def loo xam ne. waruloo koo def pour am alal. yaa ngi wax ne maa ngi ñaan yàlla pour may ma alal ma jot ma alal. Mariama yaakaar naa ne yow sax fu nga laal sa point boobu am na solo trop jaamu yàlla si boppam moom moo nekk number moom lam ñu sant ndax tamit ne wàccewuma leen si kaw àdduna wala wàccewuma nit ak jinne si ko àdduna fii lu dul ñu jàmmuma kese mm-hmm. te muñ boobu noonu si jàmm yàlla bi si la bokk te boy jaamu yalla da nga war lan muñ jaamu yalla ci bopam yombut kula la ne jaamu yàlla yomb na mu lay nax soo xiyé suba fajar gi fay sedd lol nelaw yi dañay neex mbàjj bi nga ki ñu xëc mbàjj bi bomba mu baax si baa ñuy nga tayé la jox ñu na salat khairu min naw bi da nga japp ci nelaw yi ba mu baax loolu ku munta muñ du ko mëna def nga dem julitu nga xamne dina la fek yang sa digi programme mbaa yaa sa digi liggéey nga bay lol dem julli five day fekk yaa ngi sonn mhm. yaa ngi wàcc yaa ngi ñibbisi mu lay fekk si yoon bi mhm. boo tegul sa time doo ko mën a def mhm. timis xëy na dina fekk ñëpp daje gée nekk problème bi ndaxte diggante timis ak gée foofu lay nit ñi di réere dafa gàtt torop benn 45 minutes la rek soo soo amul xool bu nga xam ne moo lay may pour nga muñ loolu nga dem julli ko yaakaar naa ne di nga am si problème loolu ndaxte julli boo julliwut bu nekk dinañ la bindal bàkkaar ba bu koy julli xaasatan nga toog ñu dégg ñuy nodd yow nga taxaw benn place yeng jàmm yàlla si boppam yombul de am na bu ñuy waajal mi ngay ñëw two months three months rek dinañ si dugg muy weeru koor weeru koor ku munta muñ rek doo mun a oor xëy di bi suba ba ngoon lekkoo naanoo ñu ayale musique bi mumbaay bi yow yu neex yëpp ñu la ko ah ku munta muñ du mun loolu noonu te yaakaar naa ne nit bu ooree waruta naqari deret de da nga war a neex deret oyof loo wax lu baax yàlla bindal la si ci yàbu yàlla nangu la lépp ndaxte mi ne taami weer ko damaa jël seytaane tëj ma ubbi leen bunti àjjana yi moo bunti xéewali ndaxte gis nañ ne bu weeri jote jotee xéewali yëpp la yàlla di wàcce buy jeex muy dem dangay ngay dégg am na ñoo xam ne suma maas ñu ne weeru koor buy dem daay jëlaale xéewali yëpp yóbbu waaye nag lu ñuy def mooy keroog bu malaaka yi paagee il ñu jàpp si yenn bagage yoo xam ne dañ ñu koy wàccal ñu bala moo dem kon nga xam ne muñ lu am solo la jaamu yàlla bi lu am solo la waaye lépp lu loo ko mënta muñ rek mooy muñ ndaxte képp koo xam ne mën na la am naa lu baax si amin bu rafet am bu jub am boo xam ne yàlla moo ko digle laaj ko fan la jaar ndax daf ko muñ ba mu am loolu noonu mm-hmm. boole si lan di si tudd yàlla di defar nit ñi di si jamm yalla di si wax lu bax ci la amé lu bax way ku xey jekki jekki am dara bu ko yalla joxut fu ko jëlee rafet su ko defee yoy ñun yépp ñu sétantal ñu ndax té muñ si boppam moy marta bu nga xamné manam ci si marta bay mo tam si la bok nit ki lepp lo xamné ñu la koy lo si lu bo muñ to muñ rek di nga tay ticca bu lay jangal tay ah. munulo mu dóor la ben nyar, mu dóor la ñaar bala ñettel bi di ñew war nga to nga xalaat ne man ticca bi lu ma dóoree kat pour ma def lu bax la kon dina muñ ba para yokku def lu bax ne bo commencé yokku def lu bax rek dóori dina jeex dum mm-hmm. la doon def yëpp boko ko rek di nga am lo bugg mm-hmm. waye di xale jamono yi tay su ticca taxawoon fi tiyé yar ku munul nangam dinaa la door tout ya tout cote au tri at di maximum di nga gis koo xam ne ba ko ticca bi dóoree dafa jóg stan ticca bi oh. lu tax mu koy dóor te yow foog naa ne yow ëppalewuloo ticca bi dalasi ëppalewuloo ko ndaxte moo la si jiitu moo la jiitu si xam-xam bi soo moom xam-xam bu mu lay jox lu leer na lay jox mu lay jàngal ndaxte yow da nga ñëw emti soo moom dafa war daf la war a sol léegi nag fekk mu sol boobu na yow lu nga bëgg doo ko am ku la jàngal nga jokk staan ko ngeen ko soo ma dóoree dinaa fay yaakaar naa ne foofu noonu kooku moom muñ moom jeex na si moom ndaxte amatul dara bu la dóoree boo feyee rek yow ñàkkati nga dootul nga dem jéggalu ko te bu la baalalul rek sa àdduna du neex kon ñun student yi ñun suñu bopp boor boo noonu tamit dañ foo war a bàyyi xel ku lay jàngal dina sonn lool dina fexe nga xam guddeeg bëccëg mu ngi si buggi di xool suba mu ngi xool guddi mu ngi xool bu wàccee sax amul time yi njaboot mm-hmm. naka kooku noonu mu ñëw si classe ba pare di la jàngal nga koy wan yeneen jikko yoo xam ne mm-hmm. bokkut ak moom lu mu lay jàngal si kalaas bi kon bu ko defee ñun student ñun tamit wàll boobu noonu dañ si war a bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax ndaxte muñ mooy lépp olof dañuy wax ne ku muñ rek nga muñ te muñ muñ boobu noonu yàlla moo ñu ko jiitu si Qur'an wa bashiri sabirin boobu noonu mooy ku muñ muñ boo muñee rek bés mi ngay ñëw kenn du la dàqaree kenn du la dàqa muñ boo toogee ngeen aw ma jëkkër yàlla mi ne la may ma tuuti rek dinaa la jox jëkkër bu baax ku tabe ku yaru ku la mën a tiye waaye boo yàkkamtee rek nga yàqu la waaye boo ko muñee rek yàlla dina ko asi ndaxte nit ku nekk yàlla bindal na ko ak time am sa time bi su jotee gisuma lu la yàlla déglu gisuma lu la koy teree am tey tàng-tàng bi fu mu toogoon nii tey mm-hmm. ñeneen ñu next month da ngeen war a tukki gisuma ko ñuy insha allah mm-hmm. gisuma ku ñuy teree tukki ñu fuñ toogaay nii mm-hmm. kon nga xam ne dañ si war a bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax ndaxte bëri na loo xam ne ñu yàqu si kaw adduna bi wala mu yàqu si société bi ñàkk a muñ ma ko waral nit ki su demee ba loolu noonu jeex si moom rek yaakaar naa ne desatu dara ndaxte muñ mooy bunt bu nga xam ne nit ki si la war a commencé lépp loo xam ne dañ ma ko dégg rek si lu baax rek dama ko war a muñ su ma ko muñu rek du ma am lu ma bugg kon su ko defee ñu gën see bàyyi xel bu baax ma bàyyi la nga continuer tuuti macha allah jërëjëf yaa mm-hmm. ah, laal na foo xam ne mm-hmm. student bi ak ci ah, ak teachers yi mm-hmm. dangaa gis ne student bi ñàkk muñ bi ñàkk ak ñàkk yar bi tamit ci la bokk ba taxaw di stand teacher bi waa ñu demaat si daara yi tamit student boo xam ne taxawayam bi ak taxawaayu oustaz bi yem na. Hmm. bu oustaz bi doore tey bu door ko ëllëg. Hmm. bu ko ñettaalee mu ne ko du ma door hmm. da ngaa gis ñoo xam sa dañoo bàyyi daara bi. loolu dal na xale yu bari. Mhm. te loolu lu koy waral ñàkkaa mokal, mhm. te oustaz bi looloo jox lu difficult. oustaz bi su lay jàngal daf naan la nii ak nii lañ koy jànge soo xamut wala soo mokkalut mu ne kaay nga laaj ma daf koy bañ dina la jox lu nga xam ne comme du passé five to six line mm-hmm. su nekkee ne oustaz bi si boppam moo xam na ne yow sa capacité fu mu am two to three line la lay jox pour nga mokkal ko mm-hmm. waaye yow bu la ko joxee mm-hmm. damal nga toog nga jàng jànguloo nga toog di fo mbaa nga toog di xoolantee nit ñi sa xarit yaa ngay jàng boo mokkatul de sañ laa doon te dóor boobu noonu nekkul dóor ne euh, pour mu mbugal la waaye dalay wan na lu nga si lu nga tiini da nga ko war a fullal da si war a def sa itte waaye bu nga demee ba nga xam ne tolloo nga ustaas bi mu dóor la benn ñaar ñetteel bi ngeen ko ustaas boobu ma dóoree dinaa fay yaakaar naa ne foofu noonu ustaas yi am nañ soon bu gaaw abal ñu lañ lay wax ndaxte lan amuloo xoli yërmande bu nga xam ne ustaas bi nu mu laa jox si boppam sax mënuloo koo muñal laajal ustaas bi moom bu mu doon jàng fan la jaar fu gën a métti yow foo jaar ustaas bi daawul nelaw guddi fajar teel foo ñu eele ñu commencé muraaja xëy na sax ustaas bi sax gaay fu ñu nekkoon amul courant sondel laay gaay di taal mbaalu mat gaay toog ñoom ñëpp toog di jàng loolu yëpp dañ koy muñ ba bu jee mokkale moo tax bu ñu defee bu mokkal yàlla xéewal la ñuy def si ñoom kon buñ leen di jàngal yaakaar naa ne war nañu bàyyi xel si ñooñu noonu ndaxte dañ la war a muñal dañ la war a déggal moo tax ku jàngee si ñoom buñ pere buñ la ñaanalee rek di nga am barke mm-hmm. kon su ko defee ñu bàyyi xel ustaas yi bu baax mm-hmm. ndaxte fuy ustaas bi di commencé yow dafa métti mm-hmm. moo nekk si xuruuf soo mistake yi mu lay waxal mu lay tette soo mistake yi mu lay waxal ba nga dem ba man waaye nag di nga gis ñoo xam ne keroog bañ demee ba man si lañ commencé di jay mbag sen oustaz te oustaz bee la Kula ku la jàngal nga koy jay mbag montom tam la wax dar xola daf la koy baye sun borom rek su la ko sun borom di nga xam lu xew ndaxte ku la jàngal foog naa ne saa ko gisé war nga ko jox respect war nga ko téral war nga ko téru waye di nga gis ño xamné ngir seen ustaas dóor yum leen daan dóor buñ ko gisee dañ koy saaga wax ko lu bon saa ñu nuyu ko dañ koy overtake ñu wiiree bàyyi ko noonu ñu ne ustaas bi dafa soxor ustaas bi baaxut ustaas bi nangamati nangam dafa bari wax daf ñu dee xas loolu yëpp lan la pour nga baax kese bu nekkee nar loo baax fii ba gannaaw suba taxu nga am dara am na ñoo xam ne si daara lañ yàqu ndaxte lan muñ bi si boppam nekkul fa xoole muñ si boppam dañ ko amut jàpp sa ustaas dóor loolu am na ku jàpp ustaasam dóor ba pare génn abal ko loolu bu la si yàlla dimbalewutee damuloo jégalu si ustaas si toroxtaan ngay si toroxtaan ngay mujj ndaxte ustaas bi nu mu def si moom yàlla moo ko def si moom muy Qur'an yaakaar naa ne kon Qur'an kenn waru koo toroxal kon nit ñi nañ di bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax ndaxte nekkul loo xam ne lu yombal muñ dañuy si tegal ñetti mbir da war a topp yàlla muñ la muñal lépp loo xam ne teg na ko la sa kaw waaye muñal lépp loo xam ne accident la si yow gis nga muñal bu nga xam ne topp yàlla julli si la bokk or si la bokk naafi la si la bokk joxe azaka bu nga xam ne problème la si la bokk nga xam ne nit ñi fu mu nekk nii dajale alal ba pare ñu nangoo joxe azaka loolu noonu soobee yàlla yomal xiyam yàlla dinañu ko laaj loolu noonu yëpp problème la ndaxte topp yàlla si boppam moo gën yàlla si boppam ndaxte booy topp yàlla dalay ay lépp loo xam ne ñaawteef la tooñ daf la koy ay carrément inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar loolu yëpp daf la koy ay ñu dem si muñ bu nga xam ne mooy lan anil balaa balaa suñ ko waxee moo nekk lépp loo xam ne yàlla dina ko teg sa kaw du ne duñ ko tuddee mbugal waaye lan la comme genre feebar la mooy ne exemple coronavirus mu paase ni balaa boppam mu ngi noonu coronavirus bi dégg la xaw ma ndax am na walla amut waaye ñu ne am na mm-hmm. in général nuñ ko waxee coronavirus mm-hmm. dañu asil ay saabu mm-hmm. madaar eau de javel face mask yooyu noonu yëpp ñu ne pour ñu sol ko pour aar suñu boppa dégg la si la bokk ñuy raxasa ko set ndaxte set islam bokk na si set si islam la saa yu nekk jullit bi dafa war a raxasu ba set max bu ngay takk noonu dëgg la ndaxte ponde bi poussière bi soj bi protection la lépp lu ñuy def dëgg la waaye yàlla mu si wàccee yenn aaya yoo xam ne boo ko jàngee fii ba suba yow dara du la jot te si biir corona bi am na ñoo xam ne jàng nañ ko ba corona bi jeex tos laalu la lu dul loo xam ne yàlla moo jël feebar bi teg ko sa kaw maanaam feebar yooyu noonu yépp bu la tegee méttit mu teg la ay nattu nattu yu métti ay gaañu gaañoog ay mbokk yu feebar ak ngay dem di toppatoo daan ko jóg ak yooyu noonu yëpp boo ko muñee ba mu demee ba jeex rek dina seet sa xol bi lu si gën a rafet mu jox la ko. ñu demaat si benn muñ bi anil maasi yi nga xam ne mooy la maa ngi dégg am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne ñi na ñi na mooy baaxut waaye neex na dëgg la. neex na so ko defee ding si am bakkar neex na da wa so ko defee ding si am bakkar wa moy mooy neex na wa bo ko defee ding nga si am bàkkaar ndaxte boo bo boo rawee nga wa ding ci am bakkar bo njaalooy neex na wa ding ci am bakkar bo reyee nit sa xol bi dina ko japp wa ding ci si am bakkar te bo mo gëna metti ray bakken yaakaar naa ak numu mel yépp dañ ko waralan bay xel ndaxte nit ki am loo xam ne maanaam métti na ba metti nga ñàkk koo mun a muñ xanaa yow yaay am sa dégg bopp ak sa sañ-sañ ne dama dinaa ko def by foos teg si seytaane moom dafay fuufaale sa xol bi da war a def by force te bu moo gën a métti xam ne gisuloo ko mu sa background bi mu ngi àndaa yow ba pare daf lay fuuf mm-hmm. tey su ma amoon problème ma Mariama tey ma wax ko lu ko naqari seytaane moo ñëw suma background kii est-ce que doo ko dem dóor doo ko dem saa ngeen jotee nga dóor ko mu dee wala nga tëjlu ko wala nga yóbbu ko koot ñu atte ko ñu tëj ko five years seytaane moo ñëw si sa background boobu noonu yow na su nekkee ne amuloo xel boobu noonu ak patience patience boobu noonu ak muñ boobu noonu amuloo ko rek boo jógee rek di ko def te bu nga ko defee ba rëccu da ngay rëccu lu tax nga def ko mooy ñëw te boobu mun nag moo gën a métti. xoolal dafay taxaw ne man maa ngi ne maa ngee dem. Mhm. doo ko gis ndaxte ba mu la koy defloo sa xol bi daf koy fuuf ba mu tàng jër mooy raw balum ñu pompe. bu na poore yëpp ay yàqu. balum balum bu toj moom kenn mënu koo jagaraa ba mu jagar bu na poore ay tas da nga gis eh, pàcc bii dem fële bii dem fële bële dem tasaaroo fële yële daanu fële na mhm. tasaarawaat ko dogalaat ko déedéet boobu noonu kay bu xasee ba dem dem kon nga gis ne muñ lépp lu lay lor yaakaar naa ne war nañ koo mun a muñ am na yeneen nit yoo xam ne seen liggéey rek pour ñu loot nit waaw am na ñoo xam ne kenn du leen laal yàlla ko wax ba iblis demee bay waaj a waaj si wàcc si ko àdduna bi fii iblis na ko sa jaam yi de am nañ problème bu ma leen demee dinaa leen yàqal yàlla ne ko waaye am na suma nit ñoo xam ne doo leen laal de te loolu am na am na nit yoo xam ne iblis ñemewul leen ba leen di jege am na lu yàlla def si moom kon na yow mu nga xam ne yàlla dafa wut si yow dara war nga mun a toog xelaat dama war a am pour muñ lépp loo xam ne yàlla teg na ma dama am pour muñ lépp loo xam ne yàlla xañ na ma waaye dama am pour muñ ne ngir yàlla kese moo tax may muñ li nekkul diw nekkul nangam te bul seet ku la si tàgg bul seet ku la si xas su mbokk yi jigéen yi ñu ngi leen di sonal torop mm. buñ si suñ demee yàlla su defee ne danga nga war a toog ñaari at wala ñetti at mm. ngay door a am doom wax bu nekk di ko dégg mm-hmm. wax bu ne di nga ko dégg xëy na programme bi nekkul programme waaye konante dinaa dinaa am lu ma si wax mm. yow su boobaa yow da nga war a am xoole muñ boo xam ne yow noppi rek te nga déglu xëy na lu yàgg yàgg yàgg. di ngeen am doom benn mun naa am nekkul si yow yow jigéen bi mun naa am si góor gi la mun naa am si yéen ñaar la yàlla bindu pour ngeen am doom ndaxte mm-hmm. am na si yonente ñoo xam ne dañ dem ba mag ba jaww si la leen yàlla door a may yàlla bu mu la laajee mu ne la ah, ah ñun dem nañ ba mag ba léegi ñun ñu ngi waaj a bee jaww mu ne waa loolu karama yàlla la dinaa leen si may doom nit ki lépp loo xam ne muñ na ko rek yàlla dina ko asil loo nga xam ne moo gën mu yombut de dañ koy wax rek waaye yombut metti na ba nga xam ne nit ku su tegu tay moom rek dina def lu nga xam ne maanaam warul soo soo woon dugg moo tax ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax jamono métti na utam alal bi métti na mm-hmm. yàqu-yàqu yi bari na waaye boo tegee seetaan tuuti rek di nga am lu baax. muñ métti na. Mm-hmm. waaye tamit muñ neex na. waaw parce que boo muñee. Mm-hmm. ba wax time yàlla bu ñëw parce que ñu ne God's time is the best time. Uh-huh. ba waxtu yàlla bi ñëw. Mm-hmm. wax dëgg neex yàlla di nga enjoy. bu baax de. te gis nga jamono bu tey buñ toll nii tey. jafe-jafe àdduna bi. xaaf bi ñàkk muñ la mm-hmm. surtout suñ ñun ñun jigéen ñi suñ néegi sëy mm-hmm. bañ nañoo muñ suñ néegi sëy mm-hmm. bañ nañoo sëy ni ñu war a sëyee bañ nañoo jaamu yàlla bañ nañoo muñ si everything lu nekk dangaa wax ne diw diw jëkkëram defaral na ko man tamit di ma ko defaral doo toog nga muñ ba time boo xam ne yàlla may na ko sa jëkkër bi defaral la ko wala yàlla mu seet si moom si boppa yàlla seet ba may la ko yow sa bopp ñàkk muñ bi mu ngi indi ay loraange lu bari bari bari si société bi surtout si néegi sëy yi tey. néegi sëy yi am nañ problème de. ndaxte na ma gaay baalal ah, jànq yi génération wala jigéen yi génération bu ma gis suñ leen teelu te dimbale rek toppandoor bi dina yàq lu bari. ndaxte xëy na yow kële jëkkëram ngi outside dëgg la. bu jëkkëram nekk outside ak ku jëkkëram nekk fii duñ mës a nekk benn mm-hmm. yow every day yaa ngi ko gis kële téléphone rek la si am kële xëy na jëkkëram si lu mu ne mm-hmm. lu mooy am maanaam su ko yónnee fii ne rek dina am lu bari mm-hmm. yow sa jëkkër na si foraatu bu metti si la nekk xëy na mu yoree bitik wala nga xam ne daay liggéey weer bi dee ñu fay ko te balaa weer bi di dee xëy na bu demee ba dépasse amul fu mu mënta jaar daf koy leb buy leb leb leb bi bu bëri nag su recevé rek dafay dem fay mu ñëw toogaat zéro léegi nag yu métti yooyu noonu soo ko mënta mun ngeen diw lu mu am man faaw ma am ko wala di ko kirti karta lu gën a yomb mooy ibil sa business yi bopp business bu nga xam ne business bu jub la soo ko ibil di ci am dara nga mun see dimbale sa bopp dimbale sa jëkkër waaye doo ko def fu nga toog foofu ngay toog commencé di kaas te xew lu am ngeen te sa jëkkër am na yërmande bu nga xam ne moom lu nekk rek bëgg na la ko yéene xëy na am na ñoo xam ne xamuñ loolu am na ñoo xam ne seen jëkkër lu ñu leen yéene suñ ko waxoon tey xëjut si ko àdduna bi waaye lan la am na ñoo xam ne dañ antoonu seen wërsëg mm-hmm. am na ñoo xam ne xamuñ ne gisee lan la mm-hmm. ñoom dañ foog rek dem di solu solu yu nice di enjoy di party di teg muñ rek moo la fa teg de bu la fa muñ mun ta teg ah ay paak bagage de moo see teg te xam naa ne moom paak bagage moom fu mu dugg moom ah du neex de ok du neex si kenn du neex si njabooti góor gi du neex si njabooti jigéen gi fekk problème bi am na fu nekk dégg nga muy si góor bi muy si jigéen bi kenn ku nekk nañ di bàyyante xel ndaxte lu ñu yàlla boole la lu ñu yàlla sant la dégg nga ndaxte muñ si boppam foundation la bu nga xam ne lépp lu ñëw rek mun na koo taawu nii gis nga suuf bi nu ñu muñalee nii ñuy dox si koom ñuy tëdd di topp si koom ñu koy gas mu ngi ne cell fu mu toog defuñu dara ñun li ñu neex ñu def si suuf kaw suuf bi doo mos a gis suuf yëngatu suuf daal mu ngi ne tekk di ñu xaar xam nga fu ñu xaare keroog yow ma xiyam ana ñu doon fecc suma ko kaay leen ana ñu doon toog suma ko daan julli kaay ana ñu doon rey nit ñi ba pare di ko gas man suma place kaay leen ana ñu doon yàq réew mi kaay leen ñu doon yàq yeneen barab bi kaay leen boobaa suuf moom si la mooy door a feeyu ko moom waaye ray naw duñu wax dara danaan cell rek di ñu déglu ñuy gas ñuy def lu nekk di topp ko di dal di yàq di def rek mun naa def naan patt rek gis nga suuf nu ñu muñalee nii yaakaar naa ne kenn ku nekk war nañu war na moom muñalee noonu moromam ndaxte lépp si kaw suuf bi lañ koy def ku dee ñu ne la si kaw suuf yàlla na yéex lu am lu nekk ñu ne si kaw suuf lañ koy defe musumaa gis fuñ la dara xew na ñu ne nañ ko yóbbu si kaw asamaan kenn xalaat ko boo ko fa defee dafay kon nag bu xam ne ñun ñëpp si kaw suuf bi lañ xëj suuf mu ñal yaakaar naa ni ñun tam ñu nii neen war nañoo mu ñalante ndaxte yàlla si boppam bu ko neexoon mu faagaagal ñu ñun ñëpp si wans waaye ba ko yonent bi ñaane mu ne ko suma xeet bàyyi leen xëy na dañ xamul waaye bu ñu demee ba xam ñoom ñoom dinañ tuub delluwaat ñaan te yaakaar naa ne ñaan boobu noonu fu nekk nii moo tasaaroo ñëw na si ñëpp te ba yonent bi taay bu koy dof di ko jam taay buñ ko boolee xale yi di ko jamee xaj yooyu noonu yëpp yàlla mi ne ko loo bëgg a ma defal la léegi léegi léegi boo bëggee sama jël mountain yëpp tañ tàncalante ko yàlla yonent bi ne ko déedéet bàyyi rek. gaa dinañ def lu baax fu gaay mujj ñu ñëpp tuub delluwaat si islam mu rafet ba bugg a dee ngir lan muñ bu muñal ñu ñun noonu moo tax la si quran innaka la ala khuluqin adim jikko bi su bopam mo rafet moo tax ñu ne lu ñuy def rek nañ xol si yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom moy suñu roy way lepp lu ñuy def rek nañ si xol ci mom nata bepp action bo xamne nit mu koy def si kaw aduna bu ko gëna rafet yaronte bi def nako ci lu bax kon ñun luñ nekk fi ni di wax di répéter di defar yëpp yépp lan la jikko la mm-hmm. jikko bu bu baaxee rek dina am lu mu bugg waaye jikko bi bu jagutee rek duñ am lu mu bugg am nañ na am nañ coono nag si ko àdduna bi nag mm-hmm. coono moom si kaw àdduna bi am na mm-hmm. waaye lépp muñ moo koy sottal rek bu muñ amee lépp bu baax bu muñ amul rek yàqute dafay gën a bari kon su ko defee ñu gën see bàyyi xel bu baax a baax a baax. waaw jërëjëf yow sax su nekk time bi dafa jeex. Hmm. Ah, time bi amoon pour programme bi tey time bi dafa jeex. Hmm. dinañ ah, rapport si programme bi tey. di santa yàlla tay bu ñu jox bu ñu toog fii mun a aw waxtaane suñu mbokk jullit si important topic bi nekk di discours ni mooy muñ muñ dafa am solo torop si doomi aadama nañ fexe nañ muñ ñu jàmmu yàlla jaamoo ko jaam yu rafet boo xam ne noonu lañ ko war a jaamee. te hmm. noonu la ko buggee si ñun te loolu yëpp si muñ lañ koo defee. ku muñut mënut a jaamu yàlla. Ah. ku muñut mënut a sëy. ku muñut mënut a nekk si àdduna bi sax. parce que muñ dafa nekk loo xam ne mooy dox àdduna bi. Uh-huh. loolu laa ko mën a waxee parce que da ngaa gis loo xam ne sa morom am na ko yoo amoo ko. Hmm. nga nekk di si nii yàlla may na ko mayut ma lan laa def yàlla. Hmm. ba ngay dugg si yeneen ak yeneen. kon boo muñee. nga xaar waxtu yàlla mhm. di nga ko am mhm. kon may ñaan suma mbokki julliti mhm. ñu ah, jël muñ ñu def ko si loo xam ne dafa am solo trop ñu boole ko si suñ ah, diine bi ñu yokk ko si suñ bopp dinaa bàyyi yàpp ustaas mu tàggataat askan bi wala ñu ah, yaakaar naa ne waxtaan bi am na solo macha allah ndaxte lépp loo xam ne ñu ngi ko fi doon wax rek defar la rek ak gën a fàttaliku wante suñ biir xëy na lu ñuy wax ni am na ñoo xam ne ñoo ñu ko dàqaloon wax buñ toogoon fii dinañ wax lu nga xam ne ma moo raw lu ma wax man mm. waaye dafa nekk na loo xam ne la rek comme nekku na ñëpp a toog plateau bi fii ni wax waaye dañ mun a lu nga xam ne rek moo nekk fa dakir fa inna dikra tanfaul muminin nga mm. xam ne fàttaliku dafa baax mm. ñu ne jotaay bu nga xam ne ay jullit ñu ngi fa dajee rek nañ di fàttaliku seen diggante seeni borom ndaxte muñ bu ñuy jàngalante nii tey mm-hmm. yaakaar naa ne boo noonu tamit benn la si fàttaliku la mm-hmm. ndaxte muñ bokk na si li nga xam ne mooy lan genn wàlli imaan imaan mooy naka gëm mm-hmm. kon su ko defee ñu jullit yi dañ di war a muñalante ñu bàyyilante suñu xel ak bépp place boo xam ne ñu fa ndaxte métti na trop nekkul loo xam ne lu yomb la bu ko defee ñu gën see bàyyi xel bu baax ah maay nuyu suma mbokki ustaas yi nga xam ne tamit ñu may déglu di nuyu walla suma ñaari sëriñ Mouhamadul Kabir ak Mouhamadul Habib Dem di doomi euh, cheikhu Ahmadina Tidiane Dem radiallahu anhu euh, di nuyu askan bi yëpp di nuyu mbooloom mi yëpp euh, di sant suma papa ak suma yaay bu baax a baax a baax nga xam ne ñoom sax yu nekk rek ñu may gën a ñaax ak góor góorgóorlu si lépp lu nga xam ne maa ngi koy def ndaxte amul lépp loo xam ne ekkati naa ko rek lu dul dañ ma see dooleel xalaat ak góor góorgóorlu ndaxte ñoom tamit bëgguma ma toog noonu rek m si noonu rek waaye dañ bëgg ma gën a yokk góorgóorlu dañ na fas num daw daw daw faaw ñu góorgóorlu ko mhm. kon di jaajëfal Mariama bu baax a baax a baax si programme yi am na solo trop incha allah yal si yàlla def barke ak naataange bu baax a baax télé bi yal na ko yàlla naatal yàlla def si ay xéewal ak sutura barke bu baax a baax bi daraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sallu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi jërëjëf yaa oustaz si sa time bi bi nga jël ñoo fi toog fii si Eco TV international ah. suñ programme waxtaani islam ñu la jaajëfal bu baax a baax di la wax jërëjëf yal na la yàlla may wér yàlla may la fan bu gudda yàlla may la kattan bi nga defee sa liggéey bi yàlla yokk ñu suñ imaan yi ñun yëpp julliti incha allahu rabbi waaye tamit suma caméraman bi di ko gërëm di ko sant Ousmane Mbaye saa yu nekk di ma caméra fii ni ñuy rafet boo xam ne ñuy view yëpp ñu ngi kontaan suma éditeur bi tamit mooy Aïcha mm. ma ko jaajëfal bu baax a muy def editing bu rafet alhamdulilah rabi alamin di kontaan si moom torop waaye tamit suma boos moomu di ko bàyyi si gannaaw balaa ma génn si studio ko ko sant ko di yàlla yàlla may fan bu gudda yàlla may ko kattan bu moo defee liggéey bi yàlla yombalal ko liggéey bi yàlla jàppale ko torop oncle Ousmane tamit ñu ngi ko gërëm di ko sant parce que boo gisee ñu toog fii tey gannaaw yàlla moom la kon nag ñu ko bu baax a baax mm. oncle Ousmane jërëjëf si sa taxawaay bu rafet bi fii la ñoo dogee waxtaan bi tey tey ba next week incha allahu rabi in indi hmm. another important topic suñu hmm. waxtaan islam Please, si Eco TV International asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.